mais xam nga président Macky lan moo ma jooyloo. ñi ci de sax correct nañu. bi ma recevoir il y quelques jours. Ndiassane correct nañu. Thiénaba correct nañu. ci Touba it. dama ñëw nga recevoir mo au palais. genné mon boo xam ne bii maayo ñoo def en 2010. loolu moo ma jërë ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal Serigne Moustapha si daal di ne ñëwaat nag ca la nga xam ne rek moo xewoon na foofilee sa Tiwaawan gannaaw ba nga xamee ne rek jamono jile ñi di politiciens yi nag daal di ñuy jël seen i gët ak seeni i xol ak seen i xalaat lépp daal di jëmalee jëmale foofilee sa Tiwaawan. nak nag ron rek ñen ñi nga xam rek doon nañ teew foofule ku ci mel ne njiitu réew mi Macky Sall am nak ña nga xam rek doon nañ ko sédel la nga xam rek jot na liggéeyé fofu lé ci Tiwaawan ak ci réew mi ba jot fa joy nak moom mi di ya, Serigne Moustapha Sy dal di yëkëti ay cadeau di wax fofu lé sa Tiwaawan bo fi ñëwé da ngay japp ne rek mitin mo xew lé mum Serigne Moustapha Sy nak lu ñu mel la dal di yëkëti di wax né rek. ñi nga xam ne nii nag ñoo di Njaasaan ak Canaba ñoom ñi la nag daal di nañuy correct ba Touba itam di kàddu yi Serigne Moustapha si ya nga xam ne rek yëkkati na ko moom Serigne Moustapha si nag bàyyiwul la dara daal dina wax rek lépp li nga xam ne rek doon na xew fii ci mim réew moom ma Serigne Moustapha daal dina ci dellusiwaat bu baax a baax rawatina nag la nga xam ne rek moo di mbirum Ousmane Sonko moom Serigne Moustapha nag wax na ci la nga xam ne rek lu bare bari la